Carapace waaye yow it li ngay def dee ko leeral yow yeeg xam naa ñeent yoo xamante ne ñu ngi doxal ci yow. mu euh, mel nag jamono ji euh, gis nañ coow li am ci biir showbiz rawatina nag ñaari événement yi nga xam ne amoon na fa fële ci kaw Kaolack gis nañ actualité bi ni mu demee. Mhm. Euh, tey préfet dafa xëy daal di génne ab communiqué wax ni nag dañu interdire événement boobu nga xam ne si Sidi Diop daf ko amal ndax nag. Mhm. déjà nee nañ li ñu wax ci li nga xam ne moom mooy communiqué bi ñu génne. Mhm. Euh, teelu ñu déposé. Mhm. li ci bari aussi mooy dañu ragal li nga xam ne moom mooy trouble à l'ordre may wax rek lépp Sénégal la te Sénégal benn bopp la Kaolack ki forum tëgg Waly Sidi Waly suñu mag la nit ku baax la nit ku rafet xol la li ma doon wax ci moom démb laay waxaat ci moom tey. te moo war a tëgg suba yàlla na ko fa yàlla defal ndam bu sedd guy yàlla def defal mu tëgg lépp lu mu doon tëgg yàlla na ko le waaw Sidi tamit mu ngi ci yoonam am na leneen lu mu war a def mu def ko waaw mais ñëpp doomu Sénégal lañ tey mooy li may wax rek Sidi sama frère la ñoo bokk label moom it yàlla defal ko jàmm waale tamit sama mag la baax la yàlla na ko yàlla defal tawféex sama waa label tamit suba teel yàlla defal leen jàmm ku si li ngay yóotu rek yàlla nga ko jot na yàlla defal ñëpp jàmm parce que yoo xamante ni moom man xam nga rek bugguma si di sori bugguma si di waaw di wax mais li mooy Sénégal benn bopp la te ñun ñëpp benn lañu tout le temps man sama xut démb mooy sama xut tey képp koo xamante ni artiste nga lépp loo yóotu yàlla nga te mooy mun a wax rek ñun ñëpp ñoo far mhm. man gisuma sax tey jii lii plaignant déedéet ñun ñëpp benn lañ mhm. te nag waale moo war a tëgaloo on suba yàlla na ko yàlla defal tawféex Mar Yacine yàlla defal ko fa jàmm defal ko fa ndam seddu guy mhm. ak lépp lu mu jublu ak 31 am ak lépp yàlla defal ko jàmm Siri tamit lu mu soxla it yàlla na ko yàlla defal mu nekk événement boo xamante gis nañ suba teel aussi daf ci investir beaucoup d'argent le fait que ñu annulé ko ah, mais xam nga ku nekk yaa xam ni ngay liggéey amaana Matar bu jàppoon ni loolu dina sam pertement du ko def ngi koy def mu ngi koy yëg mu ngi koy sentir te it moom it jàmbaar la ma Matar Diop nit ku baax nit ku mun sonn ci nit nit ku mun mun jàppale doomu aadama yàlla na ko yàlla defal tawféex moom it ndax xale yi mu yor yëpp ku si ne mi ngi si def jéego bu war yàlla na ko yàlla defal jàmm mu xuus jàll yoon bi métti na trop waaw mais jooba juba yàlla na la yàlla sàmm. 1 euh, euh, mais loolu jàmm rek la ambiance <laughs> loolu ambiance bi dul jeex la loolu commencement ba fin kenn du toog. waaw xam nga ni commencement. ba fin kenn du toog waaw ñun journaliste <laughs> déggoo ma rek si ngay gis journaliste bu jékki-jékki tëb ci kaw seen bi <laughs> ndax déggoo ma ambiance la. tey Bass Thioung ci beneen style parce que tam gis nañ tam nañ ci gis que ni ci ambiance rek ngay dox. ok loo xamante ne nii dafay foofu est nañ xaar Bass Thioung ci beneen style du beneen style de musique. musique la. Bass Thioung ak Samba Peuzzi du beneen mais ku nekk li nga gis rek ngay gis. mais tey est-ce que mën nañ la xaar au niveau la. Mhm. def son am di mhm. sama son de musique la lool. man dama am sama.